Diallo rek laa si wóolu ku bëgg am jabar mu të wala nga bëgg am kër boo demee Cheikh Thierno Diallo di nga am borom kër yor sa kër mu nekk si kër ay rab sonal la lool wala nga dëkk koo xamante ne day naan wala muy tux bëgg mu bàyyi ka fàtte ko ba faw maa ngi lay xelal nga dem seex Cheikh na jàlloo yow mi bëgg ay kayit wala nga bëgg tukki Cheikh Thierno Diallo moo lay yóbbu ba nga àgg say kayit dara du si tardé bu kenn tardé daw leen gaaw jox ma numéro bi gaaw mu ne ma 118 447 28 38 adresse bi Cheikh Thierno Diallo mu ngi nekk Porokhane Mame Diar neexul ba neexul waaye Cheikh Thierno Diallo ñàkk la am wuur sëriñ bi nee na asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sëriñ bi nee na mi ngi nuyu bokk yu tedd yi fi teew yëpp. te di leen ziyaare bu baax a baax. nee na di leen jot li kàddu yu bàyyi ko ci Cheikh Mouhamadul Mountakha. tey ñaan mu yàgg fi lool te ànd ci jataay bi nga xam ne. ci ndigalam lañ ko defee. ndax liggéey bi moom mooy boroom liggéey bi moo fi nekkal li sëñ Touba kon li nu war rek mooy déglu ko bañ koo jiitu ba mu joxe ndigal xam ngeen nag fi àdduna si toll ñëpp xam nañ ko ndax li fi suñu borom wàcce ci àdduna sépp la kon ab nattu la boo xam ne moo ko focc moom suñu borom moo waral itam daje bi yeex ndax mënaguñ ko woon a def te jotuñu ci ndigalul sëriñ bi waaye nag gannaaw yàlla def na tawféex sëriñ bi joxe ndigal ngeen xam ne bis bi sëriñ Touba moo ko santaane woon dële yi itam dële ji lam ca dële woon kon mooy sunu lépp fii jamono toll nag ñu sóoraale ko waaye xam ne suñu boroom mooy musle te lu dal nit itam moo ko ko teg kon lay jiitu rek ci li ñu war a def mooy dellu ci moom suñu boroom ak di ko ñaan mu musal nu ci waaye ànd ceeg nag dalu dalum xel bu baax a baax ci gëm ne yàlla dana ko woyefal ndax ndax dëkk bii di Touba léeg-léeg nga dégg ku ne amu fi waaye li solo ci li war a wax moo di boo xamee dëkk bi ni mu toll ak jàngoro ji ni mu fi néewe doole loolu xarbaax féetewu ko kaw kon loolu dañuy am yàqin ci ne pat bu teefi sëriñ tubaa lu bu ñaan ci dëkk bi te suñu borom may ko na may ko ko moonu ci musal kon yàlla na nu ci gën a musal ndax sëriñ bi moom juboo na ak sunu borom ci lépp